lan moo ci responsabilité Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi ce son de grands enfants des gens yoo xamante ni ils n'ont aucune maturité aucune responsabilité ce sont des gens yoo xamante ni ils utilisent l'instrumentalisation manipulation ak mbedd bi ñoom loolu la ñuy kiwee musuma déggee ku nekk Yewwi Askan Wi ku la wax loo xamante ni mën nga ko dégg mu leer na ni kii tey il a un projet sérieux bu weesoo Macky Sall ils n'ont aucun discours dàggasante xastante. mais c'est les opposants ils sont dans leur rôle. on ne s'oppose pas comme ça est-ce que xam nga ne. et puis ils peut-être que leur réaction est la à euh, des des offenses subies. Macky moom c'est le chef de l'État vous vous cherchez à être président de la République Macky nekk na président ba pare mais yow mi nga xamante ni vous êtes opposant vous voulez le pouvoir dafa am lu ñuy xool ci yow parce que état loolu tax nga xam ne nga wax coow dafa am loo xam ne boo ko defee on te sort de gis nit muy politique 30 ans du parce que dafa xamul appareil bi ko wër lan la appareil boobu yoo xamante ni ils peuvent pas se maîtriser ils n'ont pas de réserve ils n'ont aucune retenue loolu mooy waa Yewwi Askan tous tant qu'ils sont tous tant qu'ils sont un Khalifa l'État ça li ñuy def dafa yomb ñun ñoo leen ko daax foofu man je ne des méthodes yoo xamante ni mënoon naa ko utiliser man li ma xam si information xam ko si renseignement yow yi askan wi ba mu daj kenn xamu ko da ma dégg ma génn si média di wax loo xam ne waruma ko wax ça c'est être petit tey jeunesse bii ngay gis ni yëpp mais c'est une jeunesse désœuvrée xamuñu sax fan la ñuy taxaw mais ñii ils s'en servent tout simplement pour loo xamante ni amul benn njariñ vous pouvez yow sénégalais yi waxal ak ñoom mais faut pas les instrumentaliser da nga si ñu naan la léegi Sénégal nit ñi yow nañ mais lu manque beaucoup de choses dese nañ affaire yu bëri parce que ñun nekkuñu fii ci dëkk boo xamante ni tey da ngay wax li ngay wax amul benn